bisimilahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di siyaare itam bokki jullit yëpp eh, ñu ngi ni toog ak sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Fallou mu sëriñ Chouhaïbou mu am ndigal loo xam ne mi ngi bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke xalifi général des mourides jëm ci bokki taalibe yëpp kon ñu bàyyi ko mu jottali ndigal li ni ko sëriñ bi santaane. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala waa kay sëñ Lamine ñu ngi delloo nuyoo bi ak siyaar bu baax kon ñi ngi ko waxee rek sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ñaan sunu borom mi nga xam ne moo am xam sañ man te kàttanam it di lu yemul fenn mu bàyyil nu ko fi ba ak dundam doon kiimaan ci ñëpp ci barkeb Seexuna Ahmadul Xadim moonu woo léegi ci waxtu juróomi waxtu ci bis bii di yow ma asura Euh, jox ma ndigalul naa ñëw fii ci daare Hizbut Tarqiyyah ci jëwriñ ji Sëriñ Yuusu jottali ko ndigal lii ngir ñu saare ko ba mboolem mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yëpp man cee jot te jariñoo ko ndax njariñul kese la bayit wi nga xam ne moom moom la sëriñ bi wax ne man zanna xayrallaahi yuxni aw yadur fa zaaka fit daarayni du kaddin wa dur la wax ne mu ngi jox ndigal mboolem taalibe Sëñ Tuubaa yépp ñu saxal ko bis bu ne eh, gën jaa néew ñetti yoon ci suba gi ak ci ngoon gi ñetti yoon nag mooy lim bi ci gën a néew waaye ku ko weesu it amatul ab lim loo ci def rek baax na waaye daal mi ngi ci jox ndigal mboolem murit yëpp ak képp koo xam ne nangu nga laabire gu jóge ci moom ndax njariñul kese la lu jëm ci jullit yëpp man zanna xayrallaahi yuxni aw yadur fa daaka fi daareeni du kaddin wa dur xam naa jox na ci ndigal sëriñ Yuusu it ñu bind ko mool ko te tasaare ko ba képp ku ko mën a jari bëgg a jariñoo rek jariñoo gi du la jafe bu ko defee bayit wi nag doonut bayit wu beroo am na yu mu àndal waaye sëriñ bi jëmmi bayit wi rek la wax ne moom la joxe ndigal bi koy wax dafa wax ne nañ jiital bismillahi rahmaani rahim wane it bi moo ko wax moo ko waxal boppam ne xaalahu seyxuna ahmad al xadim alayhi akbaru ridwanillahi taala al baaxil xadim su ko defee teg ci bayit wi bayit wi nag moom la joxe ndigal bis bu ne gën jaa ñett yoon ku xas weesu ñett nag amatul ab lim ngoon gi noonu yàlla nu yàlla fayal sëriñ bi gën ji lu mas a fay ku muy liggéeyloo te defal no ak dégg akub topp akub jëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.